naaw ba jëwrin bi saytu biir réew mi daal di jël ndogal ngir ñu yaatal yoon yi te taxaw ci lépp luy gàllankoor dem beeg dikk bi ñii di l'autorité yu commune bu Diamniadio daal di nañuy tàmbali liggéey bi ngir jëfe ndigal. opération bii nag dafa am particularité parce que kenn umpale woon jam Diamniadio léegi neexatul dëkk neexatul dox neexatul romb tali bi dafa fees dell ay yaaykat ay oto yu stationné peu partout marché bi dépassé fi mu nekk génn ba ci mbedd yi. alors loolu nag attirer attention kilifa yu bees yi nga xamante ne bi ñoo ngi ànd réew mi particulièrement muy ministre de l' intérieur général euh, euh, Diop mu bind lettre euh, autorité administrative bi ni leen léegi nañu fexe ak communes yi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci terrain bi ñu bàyyi yoon wi bàyyi place yi nga xamante ne bi pour ñu wi la kon mu ni nañu limiter marché bi fi nga xamante ne bi mooy rëddu marché fi mu war kon bu ñu toléré ci benn nit boo xamante ne bi génn nga marché bi teg sa table ci mbedd mi mbaa nga teg sa cantine ci ci kaw dal tali bi de la même manière ñu ne aussi lépp luy place publique wala entreprise yi nga xamante ne bi ci tali bi la nekk nañu fexe ba ñu fa nekk aussi jóge fa donc ci institution yooyu lañu jógee ñun aussi bind maire xamal ko décision bi nga xamante kilifa gi jot na ko mu sawar ci lool parce que moom lu mu bëgg la mais à chaque fois mu programmé ko day am gàllankoor ci par rapport ak ak ak déroulement bi alors ci la ñu àndee ñu def lu ñu war a def dem d'abord man leen il faut ñu recenser fi ñu nekk ñu xam ni fa nekkee nan lañ fa toogee bu dee cantine la bu dee taabal la bu dee leneen la bagage ñuy gàddu ci la defee recensement bi yëpp pour fexe nag programme keroog samedi passé ñu ñu intervenir pour vraiment génne ñooñu ci nga xamante ne bi mooy euh, mbedd ñu nekk wala tool nga xamante ne bi amna jaxetal ci ci doxalen bi taaru dëkk bi tam loolu loolu loolu ñaawal ko parce que foo tourner taabal la foo tourner cantine la kenn mënul dem kenn mënul dikk donc ci loolu lañu yalla yàlla ba ñu jox samedi nak and ko force défense de sécurité yi ñu accompagner ñu ñu encadré ñu maire itam mobilisé lepp lo xamante ni la budé ay engin budé euh, ay ay pelle mécanique bu ay camion et même wa UCG participer nañ ci pour ñu and ñu dérouler opération bobu ñu ndigal lañu ñu parce que santaane gi nekkul rek fi ñu laal santaane gi dafa dafa wax ni képp foo xam ne seetlu nañ ne am na ay débordement yoo xam ne dafay gàllankoor dem dem dikk bi mais également du rafet ci gis-gis parce que Sénégal aussi dafa nekk ci sous-région bi nekk ci àdduna bi ñu am ay nit yoo xam ne dañu ñëw fekk te ku nekk boo sañoon boo amee gan ñu fekk la sa dëkk bu ñu delloo duñ la xeeb donc moo tax kilifa yi ngànk réew mi ne woon nag nañ def la ba defaraat toogaay yi defara toogaay yi nag dafay nekk ci ne képp koo xam ne da nga am ay yëngu-yëngu def yëngu yooyu yëngu-yëngu yooyu ngay def nga dem defi ji ko fi nga xam ne foofu la ñu foofu la ñu foofu la ñu foofu la ñu foofu la ñu indiqué ne foofu nga ko war a defee bu dee da ngay jaay loo xam ne dañ ko war di nga defee ko koo xam ne fu ñuy jaayee jënd la fekkee da nga nekk ab artisan ngay liggéey xam ne ay nit dañ lay soxla nga dem ci zone yi prévoir pour artisan yi nga dem fa di fa def say activité ndegem nag opération bi ñu a def opération boobu am na ci parc yoo xam ne réaliser guñ leen maanaam réaliser nañ ko à cinquante pour cent il va falloir que ñu yeggali ko loolu moo waral ba kilifa yi daal di ne ma gi maanaam suba incha allah daañu yeggali li ñu li ñu tàmbali woon. boo xoolee depuis pharmacie Gala ba ci euh, bretelle bi dégagé nañ ko ñëw dégagé triangle bi jël yoonu Mbour euh, li commencé ci Auchan bi ba ci bretelle bi dégagé nañ ko ak une partie de la bretelle bu nekk côté côté droite. mu des côté gauche bretelle bi ak ak li nga xamante ñoo nga implanté wu à partir de Ola Olam jëm hôpital euh, enfant parce que devant hôpital enfant aussi am na ay occupation ci emprise route nationale bi mais yamul du yam foofu kese beneen occupation bu ñu constaté te mu nekk ci foo xamante ni waru fa nekk daañu fa dem jële fa ñooñu parce que bokk na ci ci liggéey bi li nga xamante ni bi moom mooy taaral dëkk parce que war nañu fexe ba dëkk bi set sel mu am ay espace yoo xamante ne bi nit ñoo ko moom bu ñu soxlaa dara ñu daje fa ñu aménagé ko mais ñu bañ ko transformer marché nga xamante ne bi finalement defukaay mbalit la defukaay naka sudul noonu la foofu mais en tout cas daal loolu mooy suñu intention en rapport avec la mairie. askan bu Diamniadio rawatina ñu dëkkee ci peggu tali bi di rafetlu lool bi liggéey te sax naan lu ñu a tàmbali la. mairie ak préfecture xanaa di leen wax li rek ñoo ngi bien que ndax ci seen loxo la jaare ma ndaxte nag lii moom luñ doon xaar la te ñu continuer ko rek nag tamit waaw ndaxte loo gis ci àdduna maanaam ndorte li day day kii daal day metti mais nag bu ñu ba ci kanam ba gis li ñu ñu defal dinañ xam ni vraiment lii mooy dëgg waaw ndaxte jam ñaajo dëkku kii la maanaam de kii la carrefour la boo xam ne bii kuy dugg fi ngay jaar kuy génn aussi fi ngay jaar kon vraiment normalement kiyam dafa war a rafet bu ku fi romb ne vraiment jam ñaajo jam ñaaj gi may dégg ci télévision yeeg rajo yi nii la mel wax dëgg yàlla lii yàgg na nekk suñuy rêve di leen wax rek ni nañ ci jàpp daal nañ ci jàpp ba yëf yi continuer ba ñu eggale ko fi ñu bëgg xam na fi ci ñaari kilifa lay dépendre parce que en tant que collectivité territoriale effectivement am nañ ci benn mission de suivi mission de suivi boobu mooy fi ñu gisee ab nit koo xam ne mu ngi jalgati li yoon teg ndegem maire yoon daf ko wax ne ko il doit à l' application des lois et des règlements maanaam bépp yoon boo xam ne wala bépp euh, bépp décret ba arrêté boo xam ne dañ ko jël ci biir réew mi euh, mu war a appliqué wu ci ñëpp maire dafa war a bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy wéyal donc li war maire moom daf ñu koy sant pour ñu taxawee ko

les services techniques déconcentrés les doon gendarmerie policiers, police moom bu mobiliser pour ñu jóge Ici, vous boobu nous ci une force de défense et de sécurité donc voyez, il y a la brigade municipale bu êtes à côté c'est des civils Nous, sommes le premier rempart à côté il y a la gendarmerie à on a le, commandant à qui on a demandé nous mu d'ici à 15 jours maximum nous accompagner pour que ñu ne fa dès le soir. parce que

nous sommes l'État Les loo xamante war nañ ko def dégager nit foo xamante nekk na fu ci waru fa nekk euh, duñu hésiter pour pour def ko mais donc duñu leen bàyyiwaat parce que ñu ñëwaat di occuper ces même espace là bu ko defee mu nekk éternel euh, recommencement parce que nous ci seen xalaat ak seen xel bu pour nous, nañ opération ben opération Vous bis rek bu jàllee des dañuy dellusiwaat moo le lendemain am na ñoo xam ne tantôt nañu dellusiwaat mais dañu ñëw sur le place fekk nañ fa brigade bi ak quelques éléments de la gendarmerie pour ñu wax ne leen non fii définitif et d'ailleurs loolu mooy permettre parce que mairie bi amoon programme de pavage hmm. mu continue ko hmm. ci séance tenante la ñu woo entreprise bi nga xamante ne bi occupation boobu moo tax mënu ko yegale pour ni ko nag na ñëw très rapidement pour ñu euh, mu euh, terminer pavage bi ci côté boobu pour ñu mën continuer aménagement parce que il faut que ñu euh, def aménagement paysager boo xamante ni bii dañ fay def ay ay fleurs ay ay bancs publics nit ñi buñ soxla ñoo fexlu fa mais pas ñu transformer pas en en marché hmm. donc loolu je pense que lu ñu bàyyi xel la ñu ngi ci chaque jour On a la brigade en rapport avec le commandant de de la gendarmerie de Diamniadio Nous, mm-hmm. ñu fexe ba nit ñooñu ñu téye leen fi ñu nekk. te mairie aussi mi ngi dox ay jéego pour identifier bien site ci dëkk bi boo xamante ni daañu leen fa mën a mën Bon, c'est le seetloo bu baax ci nataal bi euh, tali bi gis nii moom tali bi Dakar J'aime Thiès bii nii mooy tali bi euh, Dakar jëm Mbour diggante bi am lu ñuy terre pleine maanaam suuf soosu nga doon gis ci kaw. te nit ñi occupé woon ko mu créé woon ay encombrement alors maire bu Diamniadio dafa santaane ne ah étant donné que fii kat dafa doon loo xam ne dafa nekk ci xolu dëkk bi ndaxte sooy xool booy romb Diamniadio suba ci li bi njëkk a tegu ci lii la maire dafa ne woon nañu def le tout ba nga xam ne dinañ fexe ba li nga xam ne ni dañ ko occupé woon te mu doonoon loo xam ne dafa ñaaw ci gis-gis nañ ko defar taaral ko ba nga xam ne kenn du xalaatati dellu ca benn ñaareel ba également ñu def fa loo xam ne ñi dëkk ci biir dëkk bi ak ñi nga xam ne dañuy jaar ci ñaari tali yooyu bu ñu soxlaa toog fu ñu noppaleeku dañ mën a am foo xam ne daañu fa mën a noppaloo ko loolu moo waral ñu defar ko nii ba mu taaroo nii ba nga xam ne dina mën a jëriñ population Diamniadio yooyu mais aussi dina mën a jëriñ ñi xam ne ñoom ñooy utiliser ñaari ñaari tali yi mooy route nationale numéro un parce que li ñu war a jàppaat également mooy ne Diamniadio dafay dafay joué waale benn rôle rôle rôle vitrine Diamniadio moo nekk vitrine nu Dakar su ma yeboo ma ne bu doon doomu aadama la dama naan xar kanam ga que jam ñaajo lay donc ndegem ci jam ñaajo lay commencé il est extrêmement important que li doomu aadama yi di ñëk a gis ci Dakar bu doon lo xam ne wax dëgg yalla bu ñu tegee suñu bët mu doon lo xam lu ñaaw la loolu mooy benn ñaareel ba également mu doon loo xam ne ni aussi jam ñaajo mu doon également loo xam ne ni aussi dafa abrité lu ñuy wax naan le pôle urbain le pôle urbain moom mooy la nouvelle ville de Diamniadio nouvelle ville de Diamniadio nag ni ñu ko aménagé état ak ay dooleem ak ay moyens am ni mu ko aménagé ñun Diamniadio bu ñu farluwulee

ci biir image yi nii lay mel quoi parce que vue bi ñu la joxoon noonu sànq dafa doon vue aérien bi quoi li boo xoolee ci biir lii lañ fa fas yéene def nii lañ ko fas yéene defee jëmbat fi ay garab mu taaru lool ba nga xam ne wax dëgg yàlla nit ku nekk boo fi dee romb di nga am mbébétu ñëw wàcc ñëw toog fi mën a profité wala également ci paysage bi pays profité wale également ci maanaam euh, taaru barab bi ak euh, profité wale également ci peut-être même feexlu fi quoi avant ngay jàll di dem quoi donc ni lañ ko prévoir def donc jàppoo ma am benen benen image bi ci gattal dal ni la quoi li c'est c'est autre chose lii mom c'est mom moy espace bi nek ginnaw ko Sëñ Mansour parce que ku nek ne xam na ne espace bi nek ci ginnaw keur Mansour dafa keur Sëñ Mansour dafa nek espace bo xam ni nga ko occupé aussi rafetlu mu nek bretelle ba bon dans un premier temps li lañ fa prévoir woon def ah, def fa benn genre garage taxi bo xam ne dina mën rallier les quartiers de Dougar et de Sidi Ponti mais après finalement on s'est dit que espace bi dafa gàtt la ligne ragal moy bo fa defee espace bo fa defee garage taxi bu indi ay encombrement loolu mo waral amna benen conception benen plan buñu buñu nek di concevoir euh, pour def ko normalement architecte bi tay ci après midi dina ñëw pour ñu requalifier zone bi ni nga bëgg a ni nga bëgg aménager mu amalé ben genre parcours sportif bu ndaw amalé également ay aire de jeu pour xalé yi ak ay toboggan ak yu demee mais bobu xam naa ne bu image bi paré da la ko garal mais c'est pour vous dire que dans l'anticipation on avait prévu de faire ça là-bas. Les plans 3D, nous, on que ni plan 3D disponible avec tout ce qui va avec. Mais on est en train de revoir un peu la fonction, de la requalifier un tout petit peu. Ci gàttal daal lii laa la le a wanagum en attendant bien que amna yenen yo xamné ñu ngi nek di def conception bi Paré na sax ga mais dafa am ay rectification yu ndaw yu ñu fa nek di def pour adapter ko avec euh, les véritables fonctions de ces gens là. soppi xar kanamu jam ñaajo doon lu yitteel lool njiitu bokk moomeel di momadou Moulaye ba tax mu daal di ànd ak sous-préfecture bu l'arrondissement bu ñaajo ngir wéyal bile désencombrement te jëmmal Diamniadio bu bees